daaru salaam gi nag bokk na ci li nga xam ni delloo na ginnaaw ndax waroon na weesu fii waaye sëñ Gawane nee na dafa mer mu ne ko maam lu la merloo mu ne ma joxuñu ma sama worma ma ne ko ah naka la ñu xottee sa worma mu ne ma sama béréb bii ma tëdd ñu jal koy néew wërale ma ko bu ma fi nekkoon kenn ñemewu toog ak man ci basak ndax bërëbu sëñ tubaa kenn ñeme na faa dugal kenn ndax béyti maam na kenn ñeme na faa dugal kenn nee na loolu laa mer joxuñu ma sama cër joxuñu ma sama cër moo tax ñuy futtiiku fa yéene wax dëkk ñoom dañoo xamul sëñ gaawaan man mii dem sëñ Babacar xam naa kan mooy sëñ gaawaan man waaw bu baax a baax a baax a baax di ñaan xalif général de mourides sëriñ mun Muntaxa mooy sëñ Touba. moom moo war a introniser moom moo war a yëkkati valider xalifa maam Cheikh Anta sëñ Ibra Ndar bi muy nekk xalifa sëñ Abdou Lahad moo ñëw fekk ko gaawaat samp ko na ñépp dañ topp ci moom kon sëñ Muntaxa am na responsabilité bu mag ndax mooy sëñ Tuubaa kër bu amee lëj-lëj dangay ngay woj ñu ko lëjal nga toog waxtaan ak ñoom sëñ bi man joxuma la ndigal yaay sama sëriñ yaay sama sëriñ tubaa waaye li ma yëg rek lay wax li ma yëg rek lay wax di ñaan yàlla dëkk bii ku ne xam na ni buñ ne màggal Daaru ñépp ñëpp mbubboo sëriñ gaawaan def seen communiqué woote sëñ gaawaan buñ demee ba ci biir mbubboo seen waajur mënu noo nax sëñ bi man dëgg rekk ma yàq waaw man dëgg ma yàq bu ma doon dee it dama koy wax waaw dëkk bii dañ ko war a dundal sëñ gaawaan ëpp na lii sëñ gaawaan waroon nañu bu ñu duggee ci dëkk bi mu mel ni panaan kon ñu ngi woo mbooleem koo xam ni sa waajur sëriñ gaawaan moo ko jur kër dañ koy pencoo kër dañ koy waxtaane nañu bàyyi xeebante bi nañu bàyyi maa la gën a jegeñ sëñ tubaa sëñ tubaa xamul ku ko gën a jegeñ sëñ tubaa ku koy liggéeyal la xam waaw ku ko liggéeyal la xam ku ko liggéeyal mu fay la waaw